mbokk internautes yi dal leen ak jàmm fan yi yëpp ñu ngi waxtaanee benn insolite boo xamante ni problème de société euh, goo xamante ni mi ngi di diggante population yu fare ca Pout ne foofee nag euh, daanaka euh, ñu ne nag coowal kast muy géwal laa géer laa duñu ko suul ci armeel yeeg duñu ko suul fii def ñuy um ak loolee moo fa daal di nag xew ba daal di nag indi benn consternation nag au sein de la population de Pout Dagné ba tax tax na nag ku ci nekk di ci wax ñu daal di koy nag médiatiser euh, foofee nga xamante ni mooy ca duwaanu pour Dagné boobaak léegi nag mi ngi suscité ay réaction yu bëri bëri ak nag vague d'indignation maanaam ñu bëri ñu koy daal di naqaru ndax nee nañu nag fi ñu euh, toll nag ci Sénégal waruñ mën a accepter yenn yi te autorités yi daal di fii nag nekk lu ci mel ni gouverneur préfet euh, sous euh, préfet gendarmerie police ak nag commandement territorial ñëpp ci war a daal di nag jóg balaa moo ëpp loxo ndax mën na daal di nag indi xeex ci diggante nag wàllum xeet ci loolee nag daanaka guerre civile sax xaj na ci euh, moo tax euh, nag euh, keneen koo xam ne daf ci indi ñëw indi ñëw bokk na ci Moustapha Diakhaté daal di wax ci scandale bi nga xam ne moo am ca Pout Dagné ne nag auteurs yi maanaam ña ko sooke nag wax nañ leen mën a daal di nag wër leen ba gis leen jàpp leen daal leen punir refus ci nag enterrement benn daam griotte maanaam benn meeru géwél boo xam ne dafa ñàkk bakkanam yàlla ji sunu borom daal koy nag jël ñu ne fële ca Pout Dagné euh, ndax euh, nag moom depuis weekend bi ñu daal di génn la décédé moom défunte bi nag euh, finalement dañu ko daal di sax mujjee rop ci beneen village bu nekkul fa nga xam ne fa la daal di nag dëkkoon ginnaaw notable yu localité boobu boobule li ñu daal di bañ lank daal di ba tëdd ci suuf ne kenn du ko fa daal di nag suul li nga xamante ni mooy raison maanaam la ñu daal di évoqué comme raison mooy ne statut de caste maanaam géwél ga mu doon moo tax nekk ñu daal di lank ne du ko daal di nag rob sa dëkk boobule moo tax mu Moustapha Diakhaté génn euh, daal di koy nag naqarlu ba fu naqarlu yam moom mi di ancien député euh, nekkoon président bu groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar moom mu Moustapha Diakhaté di dénoncer ab injustice boo xamante dañ ko jël teg ko ci du géwél yi nekkee euh, ci boobule localité ci journal Source A la waxee lu nu mel moom ex parlementaire bi di indexer responsabilité autorité administrative yu Pout Dagné ne nag ci bile histoire ko yooyu autorité ci boppam a ñoo daal di wane faiblesse bu mat sëkk moom Moustapha Diakhaté di interpeller directement état bu Sénégal ma muy invité mu daal di jël ay mesures ngir euh, daal di nag sanctionner euh, coupable bi le scandale ndax li xew ci Pout nag bu Pout dag ne daanaka nag benn violation bu doy waar la ak bu inacceptable nag ci àq ak yelleefu nag euh, ñi nga xam ñoom ñooy nag nit ak principe de légalité des citoyens ndax autorité administrative administrative yu Thiès daanaka nag faible sañu wane ci mbir mi euh, président de la république moom itam war na ci mën a wax ci nu ma gën a gaawee ngir jeexal li euh, ndax nag ay euh, géwal yu nekkee ci foofee de bu tag ne daanaka nag injustice la ñuy dund ak nag yeneen caste yi nekkee ci nag Sénégal ñoom ñëpp la ñu war a daal di nag seet ba gis leen daal leen ni nag punir ci nu mu gën a gaawee ndax lii mën na jur leneen. ak ñi naan pepe kale reefaan